ñu ngi nuyu tamit suñu waa xadra bi nga xam ne ñoo nekk fële si jaxaay si ndigalool sëriñ bi mi naa Baye Amadou Camara ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare di nuyu képp ku nekk si xadra bi waaye tamit di nuyu suñ mbokk yi ni ñu xàndal nga xam ne ay saakir lañ mi Baye Cheikh jéeme ak Baye eh, Mohamed Sarr di nuyu képp koo xam ne mu ngi si xadra bi góor ak jigéen di nuyu président bi papi ak ki nga xam ne mooy baabul xadra bi di Baye Ahmed Bari ñu ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf oustaz Makhtar Cissé nuyoo bi am na solo euh, du ñu def du ñu téye kàddu gi dañuy bàyyi euh, ñu ñu zikaral leen bëggal leen si Baye Maulana Cheikh al Islam ñu doog a ñëw si waxtaan wi ndax tey waxtaan wu am solo war nañ koy waxtaanee bàyyi la solution dañuy dégg nit di ko wax ñu di ko wax lu bëree bëri bëri tey xam naa ne Cheikh bi dañu si leeral lu. ci bi mu fay def ak lépp loo xam ne si wàllum sponsor lay doon rek dinañ si àndak ak ñoom incha allah rabbi euh, ma siy siyaare mon frère Babacar Babacar bi nga xam ni moo tax tey lii yëpp am ñu ngi koy siyaare bu baax te di ko jox sa wàcc waayam xëy na nag tuddam bi moo tax <laughs> tey talu ba maa ngi koy siyaare bu baax a baax euh, bisimilah Cheikh ayca bisimilah. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحدود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالأقوال إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدر مقدار العظيم inna xatmal anbiyaa'i faaka arsal anbiyaa'i inna xatmal anbiyaa'i faaka arsal anbiyaa'i inna xatmal anbiyaa'i faaka arsal anbiyaa'i inna xatmal anbiyaa'i faaka arsal anbiyaa'i bahru sirrin وسنائي سمس رصدي واقتدائي إن قد مع الأنبياء هاك أرسل الأنبياء جنة القلب امتداحي لملازي وسرائي إن قد مع الأنبياء هاك أرسل الأنبياء دائما فيك أنبيائي هاك وارثا الأنبياء وحنيني واقترائي في سباعي ومسائي إن قد ما الأنبياء فقارثا الأنبياء سارني طيف خيالي من حبيبي هين هلا في القلب مقانا مستحيلا لسوائي إن قد ما الأنبياء فقرث الأنبياء تلمنت لمقامي وقياتي من دمائي إن قد ما الأنبياء فقرث الأنبياء ينقضي قم سواحي فهو حميد ذو السوائي إن قد الأنبياء فقر الأنبياء كان فقما ومهيبا ومليحا ذا سوائي لا ترى سور المقفى فهو سنون قبل رأيه إن قد ما الأنبياء فقرس الأنبياء مرء سوى رأي هربتي باين ورائي إن قد ما الأنبياء فقرس الأنبياء نعمه عبد تسمى فله سر لوائي إن قد ما الأنبياء فقر الأنبياء صفوة الحق حبيب الله كنزي وغنائي هازلي فيه أراه في جو باستياحي فيه فوزي واقتلائي دامني من دام شيقا هام من هاء وبائي إن قد ما الأنبياء فقال الأنبياء قد تسلى بعد شيبنا أحل حلمي ونهائي إن قد مال أنبياء فكرزا الأنبياء رصدا والله إني تلتري في أمائي إن قد مال أنبياء فكرزا الأنبياء سوف أفنى وقراني بالمفدى سبقاء توقاني وقيامي بهجتي وبهائي إن قد مال أنبياء هكذا الأنبياء سقر الحب حصير ختمه عند الملائكة هلة من ذي ملامنا فصل من بالجفاء إن قد ما الأنبياء فكارزا الأنبياء زل أهل الحب أهلا من وصال وألاء إن قد ما الأنبياء فكارزا الأنبياء لا قلب جهارا نحو خير أنبياء قدوتي ثم روائي في حبيبي وسوائي إن قد مال أنبياء هكذا الأنبياء إن قد مال أنبياء فكأرسام نحو التهاز الهباء وعلى آله وصحبه ومحبين زلت مائي إن قد ما الأنبياء فكأرسل الأنبياء مدة الملك دواما لا ترى ذات انتهاء إن قدم الأنبياء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

xam naa nag soo fee faaw nga faaw nga am foo jaar ak man <laughs> siyaar naa lu bëree bëri bëri jox la ak képp koo xam ne mu taaliba Baay Ñas nga ak képp koo xam ne rek mu dama Baay Ñas nga ñu ngi lay siyaare te di la waa ji Mouhamadou Kabir Ndoye euh, mon frère suñu xarit la suñu kilifa la suñu lépp la moom it ñu koy siyaare bu baax euh, koo xam ne day sonn si ñun ñu ngi koy jox wàcc waayam te di ko siyaare bu baax Cheikh Mouhamadou Kabir Ndoye ak képp koo xam ne rek taalibe Maulana Cheikh Ibrahima nga waaye moom moom mu taalibe sang Barxaama Njaay nga xam naa nag Euh, si kanam tuuti dinaa leen wax benn anas incha allah rabi jagleel ko suñu góor googu nga xam ni suñu xarit la suñu kilifa la suñu lépp la moom sang barxaam Njaay euh, nee naa leen waa Kër Baay benn gu ñu bennoo rek tax na ku ma invité si ñoom rek mën naa tudd ko sa des euh, tey nag day spécial koo xam ni mu xaddam la koo xam ni ku ñu ràññee la si def lu baax si social muy Baye Amadou kamara tey nag di ngeen dégg-dégg si moom ñu waxtaanee ko si incha allah rabi ba tax na damay jox tuuti rek. ci bàyyi la solution ndax bàyyi la solution dañuy faral di ko dégg bàyyi nan la nekkee solution bi. alhamdulilah beneen yoon. Hmm. ñu ngi santaat yàlla bu baax di julliwaat si yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa waaye di gërëm njabooti Corna Assane dem yëpp eh, si seen njiit mi Corna Kabir dem eh, Corna Abdul Baaxi li dalee si kaw ba si ki gën suufe ñu ngi ndokkeel képp koo xam ne rek si faydu bi la bokk pour ma dëggal li nga wax léegi ne taalibe bàyyi kuñ si invité rek mun nañoo waxtaanee keneen ka sa des ndax daaw sang njaay mi ngay wax bokk na si ñi nga xam ne nii tuddee woon nañ leen bis bi te danañ koy tuddee sax ñoo xam ne ni euh, duñ taalibe bàyyi mm-hmm. waaye lu munti xew rek li nga laaj mooy lan moo tax nit ñi di wax maanaam loo ko wax rek moom am na si solution ba nga xam ne dina la mun a defal lool. Mm-hmm. loolu bala ñu si dugg il faut ñu xam ne doomu aadama yëpp yemuñ mhm. waaye nit ñëpp yàlla moom moo leen teral mhm. yàlla moom moo wax wala xad karam naa bani aadama wa xamal naa fil barri wal baxri wa rasax naa min tayibaati wa faddal naa ala kasirin mi man xalax naa tafjila mhm. loolu dafay tegtale ne lii yàlla bind doomu aadama moom moo si gën waaye si biir doomu aadama yooyu ñoom danañ gënante ndax yàlla wax na ne war a fax naa baax duum fawqa baax din darajaatin danaa yëkkati ñenn si ñeneen ñi si seen daraja yi waaye loolu mbiru yàlla la moo tax mu ne wallaahu yaxtasu bi rahmati man yasa wallaahu sul fadlil azim yàlla moom mooy xool ku ko neex mu jox ko ngëneel te ngëneel goog noonu yàlla moo ko jox Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu lu tax ñu ne bàyyi laa solution mooy avant bàyyi ñas xam yàlla jafe woon na xamoon na waaye jafe woon na te tamit ku xam yàlla mënoo ko xamle ba góor yàlla yu bari bëggoon nañ yegg ci yàlla waaye ku leen yeggale ci yàlla dafa xawoon jafe ku mel ni Corna Assane Dem mi ñu doon nuyu doomam yi léegi waaye bi mu dikkee si Mawlana Cheikh Ibrahima Niass si la ko xamal yàlla ba def moom mi xamle yàlla kon solution bi gën a xam solo si àdduna mooy nit ki naka lay def ba yeggale nit ki si boromam subhaanahu wa taala loolu noonu diñ ci guddal waaye mun nañoo sukkandiku si ay e, bayti baay yoo xam ne nii baay moom moo ko wax mm-hmm. te boo seetantelee bayt yi danga xam ne dëgg-dëgg kii mooy la solution mm-hmm. moom dafa wax mu ne waxatama fat yi indal mahdihi waqad xanat jamiu rijaali xay bi taxtel qadaa yi fa maa qatoo fi wal xarbi fatfadan illa makkata illa li sami sasaa yi wa lim laa wa xaynihi yowma xaynu muhammadin sarasiruhu fi haykali waruwaa yi dafa wax ne man xam naa fatxu te góor yàlla yi bu ñu waxee fatxu mooy xam nañ yàlla mu ne te booba maa si sama berso maa ngi si laytaay di dem ba màkka di xencu sama xet mu ne lu tax loolu nag maanaam lu tax góori yàlla yi di xencu xetam mu ne ndax tey sama jëmm ji mooy jëmmi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne mbooti yonentu lépp dafa roy ñëw si sama jëmm moo tax mu ne wa ahlu samaani kulluhum faasa raaqiyan su ma ñooñ jamono ñépp texe nañ mu ne si waa xat xalaa nax ji asiral xawaa lu dul koo xam ne nii dafa bañ yoon wi ma nekk bañ yoon wi mooy tee texe xam nga sama sama ñooñ jamono yëpp texe nañ duwul ne ñun dundal jamono ñëpp dañuy texe waaye li mu la bëgg a wax mooy képp koo xam ne nii dugg na si faydu bi mu ne ko bokk na si ñi nga xam ne nii dañoo texe ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ne ñëpp danañ dugg bam ñëpp danañ dugg aljana ba mu des ñi nga xam ne nii dañoo bañ ñu ne ko ñan ñoo bañ mu ne ko mooy ñi nga xam ne nii gëmuñ yàlla te Baay bi muy wax lii nii daf ne ci sama laltaay si laa xamee fatu mu dellu waxaat mu ne wusulul jamihil masikina bi habliya taxaqaquhu man lam yukkasi bi rabiya mu ne képp koo xam ne nii dafa bëgg a yegg si yàlla na jàpp si sama buum gi mu ne te loolu noonu lu dëggu la ki ma ko dëggalal mooy koo xam ne nii du fen mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mu ne wa jaw bihi fa yaafi fil maarifi lam turam faqad xasrul aqtaabu an mu ne waaye loolu noonu xam-xam la boo xam ne nii xam-xam bu leer la mu ne te góoru yàlla yi lottu nañ si jot ma man góoru yàlla yi lottu nañ si jot ma naa Cheikh Ibrahima Niass mu ne loolu nag duhut loo xam ne jàmbaaram moo ko ko may waaye bi fatli ilaahi si jalla jalaaluhu wa xubbi rasulillahi caha nabiya mu ne loolu ngëneel la boo xam ne yàlla moom moo moom ko defal ak bëgg gi nga xam ne moom laa bëgg yonentu yàlla wal xaq su fil xaali bohdiya mu ne maa ngi gëñ ne kenn duma bëgg lu dul koo xam ne mooy ki gën a texe si nit ñi waaye kenn duma bañ lu dul koo xam ne nii moom mooy ki nga xam ne moo gën a texe wadi si nit ñi ñaari ñaari bayt yooyu ñu wax bu si nekk làmbo ñetti bayt rek loolu dina tegtale ne dëgg-dëgg kii nii moom mooy la solution ndax solution bi yëpp lu tax ñu tuddee ko ko li ma la waxoon moom mooy moom mooy moom mooy xam yàlla waaye waxaat na feneen ne safaaliyal waxti wal xabibu yu xasisu wa max boobu li taaha mu xasasu mu ne man sama waxtu dafa sell waaye kan moo ko sellal mooy sama soppe bi mooy yónentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi di wax namm na mam nag mu ne muraadi li xam li sirri min xabli nas atihi mu rabbin li kulli xaarifiina wa moxlisu mm-hmm. mu ne sama namm namm mooy xenu mbootu yónentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk ma may sosu xam nga boo demee fi mu waxee bulitu bi hubbil mustafa xatmil ahmada wax na ne ataani hawaawu qabla an ahrifal hawa sulitu bi niraani istiyaqil ahmada wa zuhimtu fi hazi zamani wa innani la fi xayratin mi man yoroomu muhammada wax na tamit alhamdulillahi nataxtu taahira wa maa qultu faqran bal nata nataxtu saakira mu ne man dama sosu rek nekk koo xam ne dama nekk ku set wecc duwul ne dama koy wax pour puugarewu waaye dama koy wax ne ngir sant yàlla te yàlla wax na wa ama bi nihmati rabbika fa hadis waaye li mu wax mu ne bëgg-bëggam mooy yenu mbóot bi te yenu mbóot bi du dara lu dul xamle yàlla mbóot boobu nag la wax mu ne bëgg-bëggam mooy mu yenu ko njëkk nit ñi di sosu walla njëkk xam ak nit ñi su boobaa lan lay def daf ne waxu na mu rëbbin li kulli xawmin waaye daf ne mu rëbbin li kulli wax li su mu ne su boobaa damay yar képp koo xam ne xaarif la xam nga maanaam lu mu la ba bu bi mashadin raaw niya wa an xudu ilaya wa axlusu mu ne xutb yi suñ demee ba gëlëm xam nga ki nga xam ne waxut bu nit ñi gëlëmee waaye xutb yi la wax te ku ne xam na maqaamaam xutb buñ si duggee mun nañ dugg si beneen mawdoo boo xam ne taxul ñoo na jóg waaye daf ne xutb yi waxut góoru yàlla yi mm-hmm. waxut wëli yi waxut nit ñi waaye bu xutb yi demee ba gëlëm ba jaxasoo mu ne moom moo leen di réglé waat teg leen si yoon wi ba nga xam ne kenn du débordé mu ne ñoom ñëpp maa leen di réglé waat mu delluwaat mu ne raaytu rasulullahi nassa bi an na nii safirun lahu fil kainaati mu xallisu mu ne gis naa yonentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa mu bégal ma ne man maay ambassadeur am fii si àdduna ku wax lii nii kon kooku mun nañ ko tuddee na moom mooy laa solution ki nga xam ne moom bu bu bu xutbu yi gëlëmee moom moo leen di moom moo leen di xomataat indiwaat leen ba nga xam ne ñoom ñëpp dañuy nekk ba tey tamit wax na xam nga bu njëkk xam yàlla xamoon na comme li ma la wax ci commencement bi waaye dafa jëfe woon da nga gis ko gàddaay këram ñaar fukki at ñaar fukki ak juróom door a xam yàlla wala dugg si xàll bi di lekk façon lekk gu nekk waaye loolu yëpp bàyyi dafa dikk yombal ko dafa wax ñeenti yoo xam ne nii yëpp dafa métti woon bàyyi dafa dikk yombal ko bi si njëkk mooy tawaytu wa zahaltu tariqa ilal li kulli muridil wasl lil xaq bil xaqi daf ne yoon wi nga xam ne moo jëmoon si yàlla lem naa ko ba nga xam ne képp koo xam ne dafa dog pour jëm si yàlla mu nekk lu dëggu si moom mu ne coono bi góor yàlla yi doon daj du ko daj waaye nag góor yàlla yi ay jàmbaar la ndax dañuy wax ne kuñ dimbale dana yàpp ko man ndax ku tarbiye ñaar fukki at ak juróom nga tarbiye ñett fan xam nga ne ki tarbiye ñaar fukki at ak juróom moo la man waaye dañ la dimbale yàlla gi lem na ko yombal na ko mu delluwaat mu ne tawaytu ibadatil xawaalimi kulliha bi xubbi rasulillahi ahmada sil xulqi waaye timin leem naa jaamu yàlla gi si ak faydu boo muntu dund force da ngay dund si sharia dangay ngay dugg da ngay dund si tariqa da ngay dund si xaqiqa mënoo dund si faydu ne man duma julli mënul nekk mënoo julli si dund si faydu ne man du ma woor du ma joxe xasaka lu yónentu sallallahu alayhi wa sallam digle du ma ko def loolu jotewut ak faydu dara ne doo wirda doo wasifa teg sa kurus loolu jotewut ak fay du dara suñ sëriñ Mawlana Baye Amadou Camara waxtu wu nekk dafay toog wax ko mu ne yow danga nga gëm yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu indi da ko war a jëfee da ngaa gëm si Ahmada Tidiane ba jël tarixaam bi kon da nga koy jëfee da ngaa gëm Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba jël faydoom bi kon da nga koy jëfe waaye noo wax ne gëm naa Baye weddi naa yonentu weddi naa Cheikh Tidiane Baye dafa wax ne képp ku weddantu weddi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weddu Cheikh Tidiane na xam ne man bàyyi génn naa si moom mu ne tam man duma ma génn si nit lu dul ginnaaw bi nga xamee ne ni yàlla ak yonentum génn nañ si kooku bokk na si lu sëriñ bi di gën di digle ne mi mooy loona Baye Amadou Camara mooy waxtu julli juróom yi wasifa wirda xadra juma looy dund si faydu nga door ko dund moo tax bàyyi ne leem naa jaamu yàlla gi mu delluwaat mu ne tawaytu xuloomal xaarifiina bi asriha bi sammi raayal Mustapha Habibil Siqi mu ne leem naa xam-xamu maarifa ndax bu njëkk nit ki mun na dox sayru fukki at te du du xam lu bari maanaam mënul passé maxsat fatiha maxsat salaatul fatiha siru siyaare yu demee noonu ismulaay axsam yooyu waaye léegi mun nga di tarbiya sax di génn di liggéeyi mun nga tarbiya même pas un an ngay wax loo xam ne si maarifa nit ñi dañu yaakaar ne dox nga sayru lu mat ay xat loolu bàyyi ñes moom moo ko moom moo ko yombal mu delluwaat mu ne tawaytu madihal maadihina jamian bi xay ni lihaa i ruuhi sil amri wal mu ne leem naa tagg maanaam ñi daan tagg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nit dikk def ñetti bayti wala cinq bayti cinq bayti yi dafay wax si lépp loo xam ne nii moom euh, kële waxoon na ko comme li bàyyi wax fa ayyu jëmi rusuli ayu muhammadin fa minhu ilayhi kulla shahnin muhammama loolu daanaka dafa dajale mbooleem loo xam ne nii dafay wax euh, si wàll si wàll kaawtee fi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne basirun nasirun muxsitun wa huwa qaasimun jawaadun karimun baasitul kafi munhima loolu tamit mu ngi wax si tabeeg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dafay mel ni mbooleem tabe goo xam ne yonentu xam na ko rek dafay mel ni dajale na ko si bayti yooyu noonu waaye gis nga bi mu indee tarbiya ba pare dafa wax ne kafaytu sihaabi fi tariqal xanaa fa kulluhum bi jas bi naanal munaa walam yakun lil aqtaabi qabli mislama lisal xabdi min faydi yaruqu shanaa wa ashkuru rabbihi laysa siri xaqira fa ashkurul atbaa'i unilu fanaa mu ne sama saxaaba yi sama taalib yi ànd ak ñoom man man maa leen leemal yoon wu jafe yoon wu métti te yoon wu métti mooy tarbiya mu ne waaye ñoom ñëpp xam nañ jas bu mooy yegg nañ si yàlla mu ne fu xut bi yemoon foofu la samay taalibe dale mu ne waaye maa ngi sant yàlla man moo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ndax sama sama sama mbóot jërmelut nit ku nekk dañuy wax ne wali yu bu nekk rek dafa am si tànk yonent yàlla bu si tànk yonent bu mu tege waaye man li ma jàpp mooy Baye Niass moo teg tànkam fi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam li tax mooy yonent yëpp seen karaama yi da koy dégg di ko jàng si téere yonent yàlla Moussa xetam wi ba léegi da nga koy jàng si téer yi yonent yàlla Insa karaama bi ko yàlla joxoon ba léegi da koy jàng si téere yi xul naa yaa naaru kooni barna wa salaaman bu yonent yàlla Ibrahima ba léegi danga koy jàng si téer yi xaalis subhaanaka laa alayhi salaam di génn àdduna ñu bàyyi ñu mokkal alquran bariwut waaye gis nga léegi yàlla def na si barke ba nga xam ne karaama bi mu ngi jàll te léegi xale bu am 7 ans 8 ans 10 ans sax dafay mokkal alquran kon yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbootam jërmelut waaye Mawlana Cheikh wa maanaam waliyu bu nekk rek am na loo xam ne nii def na ko ba nit ñëpp teg si seen bët ñu bari gëmee ko si loolu waaye ñu bari liñ def seen taalibe yi mënuñ ko def waliyu yàlla yu bari liñ def ba nga xam ne mënoo tudd waliyu yàlla boobu noonu te waxoo li nga xam ne nii moom la jëf àddina bi yëpp teg si seen bët seen benn taalibe mënu ko jëf waaye baa Ñas li mu indi taalibe yi ba léegi dañ koy def ndax moom dafa indi xam yàlla bi mu demee ba jógee fi Zizayir mu ijaasal ay nit ñooñ dem la waat bay xamle yàlla xamle yàlla googu dafay continuer ba ba faw walaw situ xamal basitu faydatu uddiri ko asraarul muhita dafa wax ne su ma neexoon sama faydu bi dafay daj mboolem xadduna bi te faydu bi mu ngi gën di yaatu rek ndax loo xam ne bi fi borom jógee exemple bi fi bàyyoon cinq personnes léegi yegg na deux cent personnes kon loolu mu ngi mu ngi continuer kon damay gëm ne molo Cheikh Ibrahima Niass karaama bi yàlla joxoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi alquran waaye moom tamit moom la jox moom la bàyyi Ñas indi te mooy xam yàlla bi waaye xam yàlla boobu yëpp nag daf ko sukkandiku si alquran daf ne fal taj'alana hifsika kitaabaka karim karaamati ila liqaaika alxazim shawqi wa hubbi fiika laa yasi siwa hululi wa irtihaali daf ne yow yàlla yàlla na nga def kara alquran nekk sama karaama mu ne sama mbëggal si alquran dara mënut ko saafara lu dul may commencé alif laam miim saalikal kitaab ba qul a'uuzu bi rabbi naas mu ne loolu rek moom moo mën a saafara moo mën a saafara mbëggeelam waaye li ma bëgg a wax rek mooy waliyu yàlla yëpp liñ indi woon ñu ngi koy dégg ba léegi ñu ngi koy jànp jàpp te luñ gëm la te xam nañ ne loolu dëgg la waaye Mawlana Cheikh Ibrahima Niass li mu indi woon ba léegi mu ngi des di ko jar na maanaam war nañoo wax ni kii nii mooy la solution mooy xamle yàlla gi. macha allah jërëjëf oustaz euh, li nga dugg am naa du ñàkk di nga am loo ñu si toftal waaye laata loolu dañuy bàyyi euh, cheikh bi cheikh Makhtar euh, mu mu mu si këral ñu tuuti ñu doog a ñëw ndax bëgg nañoo xam kan mooy muxaddam Baye Amadou Camara ndax nit koo xam ne ku yàlla baaxal la waaye nit koo xam ni ku ku ñama jël engagement la si si yoon wi te kooku tamit bëgg nañu wax nga waxtaan nañu si bu baax a baax a baax a baax euh, Cheikh Abdoulaye ñu ngi lay siyaare bu baax Cheikh Abdoulaye juuf dëkk sa Kaolack ñu ngi ñuy bàyyi xel ñu ngi koy siyaare te di ko jox wàccuwaayam te di la ñaanal yow fi nga tëdd yàlla na borom bi fëgg sa bopp léegi nga jugaat nekkaat si say activité suñu waay la suñu xarit la euh, Cheikh Abdoulaye Diouf siyaar nañ la bu baax euh, jox la sa wàccuwaay bu baax a baax a baax Cheikh Otar da ñuy da ñuy zikaral tuuti rek ñu doog a ñëwaat ndax bëgg nañoo dugg si deuxième partie bi si Baye Amadou Camara mu xamal ñu xamal kan mooy Baye Amadou Camara dëgg-dëgg. ay la la la ay la la la.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 منك حبت سبابة ورقرا قدم سا حتى العي تخجو تذكر أيام السبا ويا قد مددا فلم يبق إلا لا قط وتوجه سقى الله أرضا بالمدينة إنها محت رحال في قرقيا يرقى ديار حبيب الله وهو حمينه ديار بهات الفل مرافق أجمع ديار لآل القلق خلقا وقلقة ديار لمن في قلقي يقتي ويمنع وأكرم به نفسا وسحرا ونسبة وحلما وعذابا وأتقى وأخشى فقد كان خير الخلق فقما مفكما وذو هيبة والماء شفيه تقله لا إله إلا الله laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah allahu laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illa allah allahu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah allahu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah safaun wala maun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 laa ilaha illallah illallah yàlla laa ilaha illallah ca yàlla laa ilaha illallah ha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ha illallah allahu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 ilaha illa allah wa sifaa شق تجان للأمينة للقدام لكونه وصفاء مرحبا بسيق تجان للأمينة للقدوم لكون فيه وصفاء مرحبا بشق تجان للأمينة للقدوم لكون وزفاء كيف يغلو بعد الفراق سواء بلدتها بدرها وديها مرحبا بشيخ تجان للأمينة للقدم لكون فيه وصفاء هاي دار لدى بوليد فدردا سفوادي سقوف فيه باء مرحبا بشيخ تجان للأمينة بالقدم لكون فيه وسفاء هيمانا لكل قادم وكدم هيمانا به ينال الرجاء مرحبا بشقة جلال الأمينة للقدوم لكون وسخاء إيمانا لكل فقر جليل استرى من بحره أصفياء مرحبا بشيخ تيجان للأمين للقدوم لكون فيه وسخاء إيمانا لسجد دين كرامين يا لها مفخر له وصدها مرحبا بشيخ تجان للأمينة للكدون لكون فيه وصفاء حاسمة القدم لكون في وصفاء أحمد أصله محمد فتحا ثم مختار أحمد مختار مرحبا بشق تجال الأمين بالقدم لكون في وصفاء ثم منهم محمد نجل عبدي لا يهمر سل قومهما كرماء مرحبا بشيخ تجان للأمينة للقدوم لكون فيه وصفاء سالم أصله أبوه هدي حمرين سالم أحمد لهم نغمة مرحبا بشيخ تجان للأمينة للقدوم لكون فيه وصفاء فتي أيدي أحمد بن علي نجل عبد الإله نعم ولا نجل عباس نجل عبد جبار ثم إدريس تاب فيه سناء مرحبا بشق تجاه الأمينة بالقدم لكون فيه وزفاء ثم إدريس ثم إسحاق منهم وعلي وأحمد نجباء مرحبا بشق تجاه الأمينة للقدام لكون في وزراء ثم منهم محمد نجل حبلها لا يهمرس القوم هم كرماء مرحبا بشق تجال الأمينة للقدام لكون في وزراء أصل صرفاء مرحبا بشق تجال أمنا بالقدم لكون فيه وظفاء حقق نسبة الهمام إليهم خير خلق فيثبت الانتماء مرحبا بالشق تجال الأمنا بالقدم لكون فيه وظفاء ثم رجلا بدار بسارة مسقط رأس السيق في اقتداء الشيخ تجان بين مولد القدم هام نقص تجلى سيدا طاهرا وهو سكاء الشيخ تجان وتربى بين الأبين النجيبان مرقد العيس تاته على شيخ تجان بين طيب النفس والفعال أديبا حسن سمتين بدونهم نجباء شيخ تجان بين حافظ السكري وسط صحبه هامن عن سيوقنا من دونهم كرماء سيرتجان ثم ضاقت نفس الإمام لهلم يا لها خدمة له هل يا سيرتجان بين وروا هل مبروك بعد هلومنا summa rabbi ataalahu kalla hendar ki sawihin holama o Cheikh Tidiane bayne haalimun maqulal hulumi wa man ko lan wa yukti fi qalbihi adawa o Cheikh Tidiane ndeysaan bu leen ma ko jàppee nag dama leen xam nga dama leen di topp moo tax ma mën seen zakir yëpp Eh, ma siy gërëm sama góor gi nag ndax wax dëgg yàlla moo tax moo tax ma xam leen bu baax a baax a baax dama leen di topp bu baax yéen waa kër eh, Bagnès yi eh, sànq maa ngi koy wax si biir wax Cheikh Diop borom Italie waajal rek cantaakoon bi nee naa la sama événement boobu moom wax dëgg yàlla waajal ma si lu rëy rek ndax xam nañ ma yow moom foofu noonu moom mun ta ñàkk si yaar naa la bu baax Cheikh Diop ak waa Italie yi gépp waa Kaolack la suñu xarit la suñu lépp la ñu ngi siyaare encore une fois euh, képp koo xam ni mu ngi ñuy fas safoo si Facebook bi maa ngi gis waa Kër Baye Ami ñu ngi dugg bu baax a baax a baax xanaa di leen waxaat rek euh, di leen woowaat yéen yéen yéen zakir yi ñi nga xam ne ngeen bëgg def seen événement euh, direct ngeen ñëw ànd ko ak 7TV ñu liggéey ak seen yéen liggéey bu am solo incha allah rabbi ñu ngi leen si waat bu baax a baax yéen waa Kër Baye Ami loolu moom xam naa ne ma koy teg sama loxo si loxo Babacar Sarr Euh, mu doxal loolu ndax bëgg nañu waa 7TV liggéey ak yéen comme ni ñu koy defee euh, këru kër diine yépp ndax yàggul dara rek defal nañ ko waa kër sang barxaamu tey yéen it yéene nañ leen ko suñu pag yooyu noonu ñuy def xam naa du ñàkk incha allah rabi ñuy ànd seeg yéen liggéey ak yéen maa ngi koy wax sànq benn événement bu ñu jëm muy le 9 décembre incha allah rabi nga sama góor gi sama xarit sama kilifa sama lépp muy sang Aboubacrine Barxaama Ndiaye di suñu lépp wax dëgg yàlla nee naa leen euh, soo leen ko ziaree war ngeen koo ziaree. kooku lim leen defal yéen taalibe yi jot na nag wax dëgg yàlla sëkk ñu waajaat ziaram boobu nga xam ne chaque année lay doon euh, fas yéene see ànd ak euh, kër gi tamit la 7TV incha allah rabbi ñu liggéey si ak ñoom euh, lay ñaanal yow bopp bi borom bi fëgg ko léegi incha allah alhamdulilah beneen yoon ñu santaat yàlla beneen yoon di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg-dégg suñu amoon lu ñu gënal pour ñu xam kan mooy naa Abaye Amadou Camara yow loo bëgg a xam si moom rek danga ñu koy laaj ñu tont la maanaam du bokk ak ñu ne bàyyi la solution su boobaa da ngay toog rek di wax euh, suñ waxee mun nañ mun nañ mun nañ wax loo xam ne yow bëgg ko a xam wala ñeneen ñi bëggoon nañ ko xam te xamuñ ko waaye si gàttal ñu xam kan mooy Mawlana Baye Amadou Camara bu ko defee nag yow dañ ñuy laaj loo lépp loo xam si moom ak nu gàmm gi di doxeek liggéeyam activité am lépp boo ñu ko laajee incha allah liñ si xam danañ ko tontu liñ ci xamut buñ demee ñu laaj ko ko incha allah. merci Mouhamed Mouhamed réalisation bi li ma toog fii yëpp di ree zikarkat yi <laughs> li ngay def si suuf moo tax may ree ñoom comprendre duñ mais man comprendre naa macha allah réalisation bi moo maa ngi lay siyaare waat bu baax a baax a baax. kan mooy Baye Amadou Camara su ma ko laajee mooy. Mhm. digganteem ak taalibe yi ak digganteem ak ñi nga xam ni ñooy population jaxaay bi. alhamdulilah waaw bu ñuy wax ci gàttal nit ku yàlla baaxal la. Mhm. en même nit ku baax la ba tey timin ku man dimbale doomu aadama la te ndimbal gi duhul ne daf koy yemale si taalibeem wala daf koy yemale si xaritam waaye daf koy jox képp koo xam ne ni yàlla moom moo ko bind suñ buggoon a wax kan la mu ngi dëkk dakaar Jaxaay 2 nekk muqaddam Mawlana Baye Ousmane Dieng Baye Ousmane Dieng Baye Dramé moom moo ko jox ijaasa Baye Dramé Corno Assane Dem moo ko jox ijaasa Corna Assane Dem ki ñu doon waxtaanee léegi ne la solution Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moom moo ko jox ijaasa kon moom silsilaam xam nañ ko waaye bi mu dikkee foofu Baye Ousmane samp ko fa mu nekk fa pour liggéeyal lislaam pour liggéeyal tariqa tijaan en même temps pour liggéeyal faydatul ibrahimiya mu gis ne liggéeyal yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li jiitu mooy nga waaye li gën a doy mu samp internat boo xam ne këram internat bi amul fay amul inscrit amul fay amul dara ku bëgg a jàng rek dangay ngay dikk jàng dama waxtaan ak moom benn bis mu ne lu tax mu samp daara ji te amut fay moom loolu gannaaw yàlla ak yonent bi loolu moo yàq njàngam dañ ko dugal miy jàng ñu koy fayal weer bu dee 1000 francs ñu toog weer jot mënul fay usaas bi dàq ko bi mu ko dàqee mu dem lijjanti lijjanti ba sonn mënul go mënul gàddul boppam fay mu dem wuti métier waaye mu ne nag mébét na moom def daara joo xam ne nii nit ñi dañ siy jàngee te diñ fay lu tax am na ñoo xam ne bëgg nañ seen doom yi jàng waaye munuñ fay bi kon bu ko loolu dalee kon nga gis na gis-gisam lu yaatu la mhm. mooy bi muy nekk xale mhm. gis na mu ngi jàngat problème nit ñi problème yi nit ñi maanaam liy gàllankoor seen àdduna ndax ku jàng ñu dàqale si 1000 francs yaa ngi jàngat ne fi nga jaar nii sa beneen moroom mun na fa jaar kon lii solution bi mooy man naa taxawal internat boo xam ne nii kenn du fay su fekkoon ne jàngatuloon mbiru nit ñi dafay taxawal internat ne damay fay waaye mu ngi taxawal këram internat boo xam ne amul fay amul dara te lépp moom moo ko gàddul xale yi ku si feebar sax moo lay faj bu événement jotee ñoom ñoom moo leen di xottil jàndal leen daal loolu nit ku baax rek moom moo ko mën mm-hmm. beneen bi ndimbal gi muy def kii dimbale nit ñi la wax naa la ko ndimbale gi muy def du ne daf koy yemale si taalibe yi mm-hmm. duwul ne daf koy yemale si taalibe baay yi duwul ne daf koy yemale si taalibe tiijaan yi duwul ne daf koy yemale si murit ñi waaye daf koy yemale si képp koo xam ne nii yàlla moom moo ko bind moo xam nga nekk jullit moo xam nga ñàkk nekk jullit masalan xam nga ñu bëri dañuy weddi gàmm am na ñu koy weddi ibaadu yi waaye ibaadu yi jënd nañ nag gàmm gële paase indi fa macha allah kon loolu moom xam na relation ak ibaadu yi chrétiens yi bokk nañ si ñi nga xam ne dañuy toog di saaga sëriñ si wala nangam wala nangam moom képp koo xam ne yàlla moom moo ko bind rek moom bëgg na la te mu lay dimbale si lépp loo xam ne nii man na ko dëgg-dëgg euh, jàmbaar la yor tamit taalibe yoo xam ne nii ay jàmbaar lañ waaye loolu yëpp nag dafa xitmaal sëriñam ba sëriñam gërëm ko ñaanal ko moo tax bi mu dikkee li ma la wax liggéeyal na yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si daara ji samp na xadra boo xam ne waxtu wu nekk dañuy def xadra juma dañuy wasifa dañuy def daayira dañuy def lépp loo xam ne xadra daf koy def en même temps tamit waxtu wu nekk nit ñi ñu ngi ñëw foofu noonu di tarbiya waaye tamit mu samp gàmm gu mag goo xam ne nii si lañ war a waxtaanee yaakaar naa wax ji li muy bëri bëri ak wiir wiir bi yëpp mooy le 11 novembre. lan moo fay xew ndax bëgg naa moo tax ma koy wax si biir wax sànq naan leen bëgg naa àdduna teg seetaan ko. waaye loolu faaw ngeen ñëw si kër gi ñu liggéey si. Mhm. loolu dama koy bàyyi ak Babacar Sarr incha allah dañu si waxtaan ak moom. incha allah def tout ba télé bi def ko direct incha allah rabbi. incha allah. gàmm waaw loolu lan moo waral gàmm gi. waaw loolu ñu ngi leen ñu ngi leen fay xaar gàmm gi li ko waral yow mooy liggéeyal yonent Yàlla Muhammad sallallahu sa wa sallam. jaarale ko si benn jëmm mais Mawlana Baye Amadou Camara bi muy métti mu tuddewoon ko gàmm gàmmam moom mu dem ba xam ne affaire yi dëgg-dëgg fi mu nekk ni mu ngi jàll mu tuddee ko gàmmu jaxaay léegi sax dañuy wax gàmmu Maolana Baye Amadou Camara waaye dañ naan gàmmu waa jaxaay gàmmu gi ren moo nekk dixième édition maanaam fukki yoo fukkeeli yoon kon loolu dafay mel ni 2014 lañ commencé gàmmu waaye li passé 2014 doon nañ def ay guddi sikar wala di def nangam di def nangam waaye mënuñ ko woon a tuddee gàmmu waaye lu tax ñuy wax gàmmu loolu 2014 la ak léegi mu nekk fukki at su paasee rek da ngay gis ne beneen gàmm bi ñëw moo dàq bi paase woon ndax gàmm nga ni muy demee mooy ajjuma bu ñu xëyee dañuy jàng alxuraan. bu jàngee alxuraan ba pare tamit dañuy def consultation gratuite képp koo xam ne dafa am feebar bu dikk am na ay docteur yu mag yu fa nekk ñoo xam ne ñoo lay seet faj la li nga soxla si garab ñu jox la ko. mën nañ dikk ñu xoolal ko su xaajoo ay verre verre yi même bii jar trente cinq mille bii jar quarante mille bii jar cinquante mille bii jar trente mille. yow mille francs ngay joxe ñu jox la verre loolu rek gàmmu la loolu rek jar na gàmmu. mais fond boobu fond boobu fan lay jóge hmm. ndax nit ki mënut ta def gàmm rek eh, bëgg a wàccee nag rey nangam sangam def lii ak lii ak mais fond boobu fan lay jógee. fond bi yëpp fi muy jógee rek mooy gis nga boo yoree da nga koy dénk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, boo ñàkkee mu jox la mooy banque bi gën a wóor. mooy gën a wóor du du wut loo xam ne dafa am ñu nekk si ginnaawam di ko tuur non waaye lépp lu xam pare na pour def ko si bis boobu moom dafay wax mu ne su bis bi di waaj a ñëw milliardaire lay doon wala millionnaire waaye bu bis bi paasee rek faqiir lay doon ndax lépp lu mu laaj daf koy def budget bi yëpp si moom lay jógee duhut loo xam ne nit dafa nekk si ginnaawam di ko di ko dimbale. Mm-hmm. te comme li nga wax indi nag yooyu noonu ñun mosuñ gàmm ba gàmm gi jeex te desaluñ ay nag. macha allah. mosuñ gàmmu ba gàmmu ngi jeex lu mu néew néew dinañ desal même bu dee 4 nag 5 nag 6 nag kon loolu kooku mu ngi sóoraale même boo wootee sax xam nga mun nga woo 10 personnes 100 personnes ñëw loolu yëpp ñu ngi koy sóoraale li nga wax tamit pour ñu liggéey si télé bi loolu mun na nekk soo jaaree si Babacar ndax Babacar bunt la si sëriñ bi ku fa am doole la sol sama daal sax dem fa <laughs> mu nga ku am doole la boo leen dikkee mun nañ bokk ak yéen liggéey ndax euh, télé ñëw fa rek di jël gàmmu gi loolu beneen buzz pour télé boobu mm-hmm. parce que gàmmu international la. Mm-hmm. mais dona dona lay doon. <laughs> loolu yëpp mën na nekk mais li ma bëgg a wax ñu dóor ma dona dona lay doon. Euh, li ma bëgg a wax mooy euh, suñ defee consultation bi ba pare dañuy def don de sang maye deret. Mm-hmm. te yow xam nga ne deret du li ñuy jaay ci clinique. du li ñuy jaay hôpital. Mm-hmm. du li ñuy defar. nit ki rek moom moo ko man mën a may mbokk nitam te tamit euh, bu ñëwee maye ko ñu dem teg ko ci hôpital yi ñenn ñi buñ feebaree mun nañ koo jëfandikoo. yàlla dafa wax mu ne man qatala nafsan bi xayri nafsin aw fasaadin noonu duul ne waa jaxaay rek lañ ciy woo mais képp koo xam ne bëgg na xettalil nit ñi bu ñu defee accident wala bu ñu nekkee si yenn jafe-jafe yi di soxla deret rek ñu ngi lay woo foofu noonu nga ñëw maye deret te maye deret bi tamit ki koy mayee moom am na si sens na bu xamul ban groupe la bokk danañ ko wax ban groupe la bokk en temps su fekkee moom dafa feebar feebar bu muntu feebar bu dikkee bu defee danañ ko wax ne ko feebar nangam nangam moo dal li hôpital nangam ak nangam ngay dem boole ay docteur yoo xam ne ñoom ñoo lay faj kon loolu tamit beneen beneen ndimbal la suñ demee nag ba 16h si lañ war a def benn convoi bu mag jëli ki nga xam ne ni mooy sëriñam mooy Maolana Baye Ousmane Dieng mi nga xam ne ni moom mooy jógee Kaolack. ñu taxaw si Baye Ousmane Dieng. Mm-hmm. ñu doog a ñëw si Zakari ndax xam naa li des si temps bëreetul. Mm-hmm. Euh, donte waxtaan nañ solos gàmm gi. Mm-hmm. lan moo waral Faydu Sane bi. waa Faydu Sane yi xam nga buñ ne Faydu Sane yi mooy ñi nga xam ne ni dañuy tëgg di fecc. bu ñu ne faydu ëwal mooy ñi nga xam ne ni dañuy sikar sans fecci sans yëngu mhm. waaye du ne faydu saani si Baye Ousmane Dieng la commencé du moom moo ko indi de parce que defe naa ne bu fekkee ni moom la est-ce que Abdou Wilane njëkkul ko def faydu saani mhm. te beneen bi maanaam gis nga faydu nit ku nekk rek ak ni koy dundee mhm. maanaam li gën a am solo mooy nit ki na fexe ba lislaamam bu si dara manqué na fexe ba tarixam dara bu si manqué ba tey tamit gis nga euh, yëngu bi da ngay xool nit ki maanaam lan la ñuy def ndax dañuy misik su fekkee ne ni li ñuy def dafa xaram su boobaa fecc bi dafay xaram su fekkee ne ni li ñuy def dañ koo sib su boobaa fecc bi dañ koy sib su fekkee li ñuy def dafa dagan su boobaa fecc bi tamit mun na dagan dafay dépendre si lan lan la ñuy lan la ñuy def bay fecc beneen bi mooy nit ku nekk rek ak ni muy dundee faydoom waaye faydu bi mënoo ko dindi mënoo ko dund sans l'islam duhun ne dafay ñëw sans tariqa ne dafay ñëw waxtu wu nekk Mawlana Baye Amadou Camara loolu lay wax daf ne lu jiitu si doomu aadama bi mooy l'islam mhm. li yonent sallallahu alayhi wa sallam doon euh, fii si Dakar euh, Mouhamed defe naa ne envoyé naa la affiche bi su ma su la neexee mën nga ko illustré su may wax si loolu ma koy tëjee nga ñu may leen ko waaye damaa bëgg nag lu ma leen may may may may wax yàlla ngeen ñëw liggéey ak 7 ndax mooy sama sag incha allah ah wax tamit nit day wax loo xam ne moom ma am de ngeen liggéey ak 7TV mooy sama sag ndax man wax dëgg yàlla religion lay def tey télé bi di dugal di jaaree si man daf may gënal fuuf. Mhm. religion bi li ngeen di fay yeneen télé yi mën ngeen ko fay set TV. ñëw leen ñu liggéey si bu baax a baax a baax incha allah rabbi ngeen ngeen bëggal soppee rek ñu doog a ñëwaat euh, mu daana xam naa ni waxtu bi daanaka li si des bëreetut. الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله نجل الوجل قم جخاي برهما لا لا لا إله إلا الله نجل الوجل قم جخاي برهما لا لا لا إله waajal gàmmu jaxace barhama la la la ilaha illa allah la la la ilaha illa allah la la la waajal gàmmu jaxay bay amadu moko la waajal gàmmu jaxay bay amadu moko la ilaha illa allah la la la Baay Amadou moo ko woote la ilaha illallah la Allah Allah Amadu yaa ñu woo ci barhama la la ilaha barhama jërëjëf Baay Amadu yaa ñu woo ci barhama la la la barhama jërëjëf Baay Amadu yaa ñu woo ci barhama la la la إلا الله لا الله لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا yàlla bëgguñu lu dul gàmmu gi dunduñu lu dul gàmmu gi waxuñu lu dul gàmmu gi sonnuñu lu dul gàmmu gi bëgguñu lu dul gàmmu gi waxuñu lu dul gàmmu gi dunduñu lu dul gàmmu gi xaaruñu lu dul gàmmu gi xaaruñu lu dul gàmmu gi allah allah la ilaha illa allah allah allah la ilaha illa allah إلا لا لا لا برهام جرجم باي أمدو يا نيوتي برهام لا لا لا الله برهام جرجم باي أمدو يا نيوتي برهام لا لا لا الله لا لا لا لا نجل وجل قمو جخاي نيونا حمدا لمن يا سيقنا ci weeru gàmm laay woy ci yow ndax yàlla may ma ay ngëneel hamdan li man yaa sayqana ruul wujoor xutbu samaan ci weeru gàmm laay woy ci yow ndax yàlla may ma ay ngëneel duma mosa tay di woy ci yow ndax tay woowe ci yonen ruuxul wujjoot bi yaa ñu xamal leeru mbindéef yi tax ñu am bay amadoo danaa la woy ndax yaa ñu may li ci ñun gàmm jaxaay gi tax ñu am bay Usmaan mi raw ci ñun bay amadoo danaa la woy ndax yaa ñu may li ci ñun gàmmu jaxaay gi tax ñu am bay Usmaan mi raw ci ñun hamdan li man yaa sayxana ruhul wujoor xutbu samaan ci weeru gàmmu laay woy ci yow ndax yàlla may ma ay ngëneel bay duma mosa tay di woy ci yow ndax tay woo woy ci yónneen ruhul wujoor be yaa ñu xamal leeru mbindéef yi tax ñu am baay amadoo danaa la wéy ndax yaa ñu may li gën ci ñun gàmmu jaxaay gi tax ñu am bay Ousmane mi gën ci ñun jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax a baax baax a baax si yéen ñaar euh, mu nekkoon Mouhamed Baye Mouhamed Sarr Zakir ak ki nga xam ni mooy Cheikh Jémé ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax li ngeen fi sikar am na solo temps bi jeex na ndax dañuy dem xam naa léegi journal cheikh bi looy tàggatoo. waa alhamdulilah beneen yoon ñuy sant yàlla ñëpp moo tax ren mu ne vendredi lañ koy commencé. Mhm. ndax consultation bi eh, samedi lañ daan def lépp si bis bi mais def am ñoo xam ne dañuy toog ba ngoon jot. war a consulter wu ñu xool seeni feebar heure bi jeex diñ leen mun a jël ñu delluwaat ak ñàkk faju te bëggul loolu moo tax mu ne ren vendredi la koy commencé ak tamit bi nga xam ne képp koo xam ne ñëw na foofu rek Euh, li nga bëgg di ko def ñu ngi nuyu waa xadra bi yëpp di nuyu papi mi nga xam ne moo jiital xadra bi di nuyu baabul xadra ki nga xam ne mooy bunt si xadra bi waaye di nuyu soxna sëriñ bi suñ tuddee yaasu fi tudd nañ ñëpp di nuyu tamit sama sëriñ cheikh mouhamadul maalin siise di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér ak wérle yàlla defal ko tawfiix ak taysir si barke yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi nuyu tamit sama famille yëpp képp koo xam rek Euh, maa ngi koy nuyu ndax am na ñu may yónnee léegi message di mu war ne ma maa ngi seetaan 7TV te waxuma si kenn émission bi kon loolu dafay tegtale ne seen télé bi nit ñaa ngi koy bàyyi xel. Mm-hmm. man yëgliwuma ko eh, satiwuma ko defuma ko dara waaye lu mat 20 personnes yónnee nañ ma message. ba pare photo télé bi sax yónnee ma ko ne ma maa ngi seetaan seetaan tv kon loolu duhul ne suñu émission bi moo tax ñu koy seetaan mm-hmm. waaye dafa fekk mu nekk loo xam a mu dem ay xati xat yu bëri maanaam bu commencé ren mu nekk loo xam ne nii du wóotul lii ñàkk a continuer ndax léegi ñun si télé bi lañ bokk imi gàmm gu ñu xam commencé nañ ko daaw gàmm gu ñu xam dinañ dikk fii nii def fi émission te gis nañ ne émission bi dafay jàll ndax télé bi ñu bëri ñu ngi koy seetaan bi ma demee sama dëkk li ma njëkk a def mooy defar sama télé bi jàpp 7TV wan leen numéro bi mhm. na leen samedi si ngoon kii ajuma na ngeen jàpp télé bi nii dañ fa am émission kon bu ñu demee ba digg Saalum di fa jàpp télé mu leer loolu wax dëgg yàlla seeni seeni seeni liggéey la maa ngi nuyu tamit samay papa yeeg ñi ma jàngal alxuraan sama famille yëpp waaye daal fi ma si tëjaatee mooy nuyu sëriñ bi mhm. mi Mawlana Baye Amadou Camara mi nga xam ne moom moo waral bis bii nii yëpp waaye lépp du dara pour mbaax mhm. ak tamit bëgg lu baax bëgg tamit nit ñi jëriñu bëgg nit ñi faju bëgg diini ji jëmaase ñi dem ba si kanam di rey béy dem ba si kanam di rey xar dem ba si kanam di rey nag léegi ñu ngi rey nag ay nag ay gëlëm ba daaw dañoo génnee gis na wax dëgg yàlla mbir mi da ngay yaatal mhm. dix quartiers yoo xam ne nii si biir jaxaay la lu mel ni dix neuf vingt et un dix sept douze te cité gendarmerie ñu bëri ñu jël nag ak lépp loo xam ne day xànd si nag bi yëbbu foofu na leen togg leen. maanaam bëggatuñ gàmm gi ñu ne si buntu kër sëriñ bi rek lay xewe waaye dañoo bëgg mu dem ba nga xam ne képp koo xam ne si biir jaxaay la nekk wala si commune Kër Massar la nekk rek nga xam ne yow da ngay jot sa cër te du teene da ngay toog fi nga toog xam nga su fekkoon dañoo bëggoon nit ñi ñëw lépp dañ koy defee sa kër gi ñu ne na nit ñi ñëw waaye li ñu bëgg rek mooy am na ñoo xam ne feebar nañ mënuñ toog si naaj te bëgg na ñoom ñëpp ñu gis si seen bopp moo tax ñu yëkkati nag ak yi muy àndal yëpp euh, defal defal leen ko loolu yëpp si mbaaxam la te duun ne si loolu rek la commencé mu ngi def social yu am njëriñ dimbale nit ñi si tabaski bi ndax nit ñi ñu bëri dañoo sonn mu dimbale leen si tabaski bi dimbale leen si lu nekk loolu na nit ku baax ak borom xol bi yaatu moom moo ko man gis nga xaalis boo koy joxee dafay mel ni sa kawar bakkan bi la ñuy buddi dafay métti joxe du xaalis ngay xam ba pare door a joxe mais joxe mbiru xol la mm. yàlla yàlla moo def loolu joxe mbiru xol la nit mun na yor ay milliards du mën a joxe nit mun na yor ñaar dërëm sax di joxe dërëm bi dese dërëm mm-hmm. waaye moom noonu la ko yàlla bindee xolam moo rëy li mébat yëpp sax da koy bëgg a def mais du ko man mm-hmm. waaye kon li ñuy def mooy ñaanal ko yàlla yàlla may ko wërsëg mm-hmm. yàlla yibbi ko si barke yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu tamit Oustaz Mamor xam nga wax naa leen ne la gàmm gi am na ibaar yu fa ñëw indi nag mhm. kii may nuyu nii xaritu sëriñ bi la wëllu réem la léppam la mhm. te waa Tiwaawan la macha allah noonu tamit la xamee ñi nga xam ne nii waa waa Touba lañ mhm. ba gàmm gi nii passé dañoo dem jox sëñ Abdou Karim boole ko si ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee bis bi mu yebal doomam soxna may mu dikk teewee ko duhul na gàmm gi dañ ko def pour ne wàll Baay Ñas la waaye dañ ko def ne pour ne yonent bi la bu dee yonent bi la nag ñëpp si lañ bokk moo xam murit moo xam xaadir moo xam laayen moo xam ñëpp même gàmm dañuy yëkkati ñëpp ñu jàpp nga li lañ ñu koy ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq ak taysir si barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf oustaz Makhtar Cissé jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax comme ni nga waxee rek euh, xam naa du ñàkk dinañ woo Babacar insha allah wala ñu ñëwal suñu bopp mm. ndax daal am naa yéene télé bi liggéey ak yéen si bu baax a baax a baax a baax comme koy defee yeneen jàng yi koy defee chaque année sànq maa ngi koy wax si biir wax naa ah, leen le 9 décembre tamit war nañoo am ziar ñoom it xam naa dinañ ñëw liggéey ak ñun ak ñeneen ak ñeneen ubbil nañ leen suñuy bunt yéen képp koo xam ne rek day day day def jàng moo xam Sorano la moo xam Grand Théâtre ubbil nañ leen suñuy bunt ngeen ñëw liggéey ak 7TV dañ si def xéwal bu baax a baax a baax a baax incha allah mu xam ne réalisation bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax réalisation bi wax dëgg yàlla rafet na set na tubaarkàlla yàlla na loxo bi gën a wér ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay siyaare yow it la jox wàcc waaye di siyaare Modou Diouf Euh, sa sa sa patron ñu ngi koy siyaare bu baax di siyaare Papis Mbaye euh, Adama moom it ñu ngi koy siyaare bu baax euh, ñaareel feccu lii nag su neexee nday jaa jàpp sa bagg moom même na dul fay chaque jour lii moo ñu koy permettre pour ñu koy def moo tax ñuy am yéene tamit di ànd ak yéen pour liggéey ak yéen ndax wax dëgg yàlla mu ñuy teg fii ñuy yàq courant rek yomb na trop waaye ñuy ñuy dugal dafay gën a neex moo tax ñu leen siy woowaat bu baax a baax a baax El Hadj Mor na bi suñu waa ji ñu ngi koy siyaare bu baax moomit Euh, di ku mën def social euh, mi ngi mastawu tamit waa Palestine gépp moom El Hadj Mor Gueye sopp na bi ak képp koo xam ne fondation sopp na bi nga bokk mi ngi lay waa Palestine bu baax a baax a baax Babacar Mor de ñu koy siyaare bu baax suñu yaay soxna Kanku Jaan di dox di ajuma ak jàmm euh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.